léegi tamit bi ci tegu mooy lislaam dafa fee fekkoon taaddudu zawjaat mooy soxna yu limu lislaam ba mu ñëw ñëwagut daanaka góor ñi dañoo nekkoon ñoo xam ne kenn ku ca ne lu la neex ci ay soxna rek mën nga koo takk amutoon limit léegi léeg nga gis ku takk ñaar fukk léegi léeg nga gis ku takk fukk ak juróom léeg léegi nit daana dem sax ba am lu mat fanweeri soxna waaye bi lislaam ñëwee nag nangu na li soxna yu limu waaye tamit nag dafa ko limité ne fii nag mooy baraas bi bu ko kenn jéggi dafa limité soxna yi ci ñeent ne kenn amul droit di passé ñeenti gor su fekkee ne yow ab jullit nga kon nangu na limu gi waaye limité na ko tamit ci ñeent ñu bu njëkk ba nag bi lislaam ñëwagut léeg-léeg nit am fanweer ñii am fukk am ñuy am sax téeméer téeméeri soxla xaw ma ko ñu di dooyee su ko defee nag moo waraloon lislaam mi ko limité ci ñeent moo waral alquran wax ne fankixu ma taaba lakum min annisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa ne bi maanaa takk leen ñi nga xam ne ñoo dal seen xel takk leen ñi nga xam ne ñoo fees seen bët ci jikko yu rafet fees seen bët ci diine fees seen bët timit ci li ngeen di uti ca ñoom fekk ngeen ko ca ñoom waaye nag man ngeen a takk ñaar man ngeen a takk bi maanaa ñett man ngeen a takk tamit ñeent doora a arrière ne fa in xiftum alla taadiloo fa waxida loolu boo ko seetee xikma bu rëy mi ci kon gis nga ko lislaam ba muy lim soxna yi nee nañ takk ci ñaar la commencé kon daanaka rek dafa jàpp ne tabaarakallaahu góor ak senn si soxna wala góor ak senn si jabar daanaka daal amagul jabar bala nga xam bànneexu soxna yi maanaam ci bànneexu maanaam kër boroom kër ak bi maanaa ni eh, tey oto bu mu munti doon soo jëloon tey première rek première vitesse nga bëgg ko première vitesse li man mooy départ rek waaye bu oto bay yëkkati ko rek gaawal nga def deuxième. deuxième nag mën na caa sori bu demee ba ci kanam troisième ñëw quatrième ñëw nag oto bi oyof waaye première moom dëgg-dëgg tàmbaliwaay la waaye nekkut loo xam ne lu luñ mën a dem di ca yàgg la. boo ko seetoon tamit tey tabaarakallaahu ñi nga xam ne tey ñoo nekk ca àll ba. li ñuy tuddee garab goo xam ne dafa am ay càq ñi di ko tuddee jàbbu nga xam ne tey bu éeri mbees gerte taxawee ci lañu ñu taxaw di bees xam ngeen ne tamit benn benn càq di benn jàbbu kenn mënu cee taxaw fokk rek mu nekk ñaar wala ñett bu demee ba ñeent nag moom du la neex da ko cay tëdd da koy mën a tëddee moo taxoon gis nga kon benn soxna daal tàmbaliwaay la waaye nekkut lu ñu war a continuer rek nekk ca ndax góor piir balaa mat góor mu nekk góor gu ñuy ay ayloo xukkamaa yu dañuy wax ne góor ñu ko dut ay ayloo ay dal ko kon nag loolu nekk na loo xam ne nekk na lu jar a xel moo tax alquran ba muy tudd rek dafa njëkkee ci ñaar doora daanu ji ba ca ñeent wane nag ne su ngeen ragalee ne mënu leen a maandu ci diggante soxna yi dëpp leen ngeen yem ci benn kon gis nga ko kon dafa jàpp ne kon daal benn soxna loru rek moo koy war a waral loo am mu ne benn jabar yow dañu jàpp ne yow ku loru nga ku mënul sa bopp nga ndax eh, li la war ci ñoom mënuloo ko ñu ne la nag demal nga yem ci benn moo tax mu ne fa in xiftum allah taadilu fa waaxida kon tamit nag li tegu lañ cay déggee mooy kon charia fekkoon na fi ay soxna yu limu yu bëri waaye ba mu ñëwee dafa delloowaat nit ñi ne bu leen paasee ñeent moo taxoon tamit ci sunna xaylaan a saqafiyu xaylaan a saqafiyu bi mu takkee tuubee dugg ci lislaam fekk ku bari ay soxna la àndandoor ak moom dugg ci diina ji soxna ya yonentu bi laaj ko ne ko ñaata soxna nga am mu ne ko fukki soxna laa am nga ñoom ku duwul ku jullit day xiir dangay xiir yonentu bi ne ko nag sama diina ji ñeenti soxna la maye demal nga wàññi juróom benn ya ba desee ñeent mu mujj wàññi juróom benn ya jàllar ku ko ñeent kon nag sharia daakoorut nit ki passé ñeenti soxna léegi-léegi nag nit ñi naan waaw lu waral sharia may nit ki muy takk ñeenti soxna te may génn benn jigéen muy am benn jëkkër xam nga loolu gàtt xam-xam ak ñàkk xalaat la ndax tey soxna si moom moom góor gi lu mu bari bëri ay soxna mu mat ñett wala ñeent du teree doom yi lu ñu limu limu benn baay lañuy am waaye tey nag su fekkoon ne soxna si dafa amoon ay jëkkër ñaari jëkkër ñeenti jëkkër juróomi jëkkër su boobaa doom yu ci am du mën a wax ne kii mooy seen baay waaye nag tey lu soxna ya limu limu moom bàyyi de kenn rek lay doon waaye gis nga ko dem na ba médecine demee ba nga xam ne avancé na dem nañ tey ba gis ne góor jigéen gi tey bu teyee mu sëy ak kii ëllëg mu sëy ak kële ci ay góor yu wutee loola mën naa dem tey ba indi feebar boo xam ne mooy feebar bi gën a bon tey ci jamono ji nga xam ne li koy faj ba léegi trouvé guñ ko muy li ñuy tuddee sida muy maanaam te xam nga sida moom yàlla xakim la moog zina ñoo tolloo képp ku mucc ci zina rek yàlla mën na laa musal da nga mucc si sida si sida waaye képp ku takkoo zina di ak mooy guddeeg bëccëg yaa nga ca mënuloo mucc mukk ci sida gis nga ko yàlla ba mu koy ba mu koy wax tudd zina muy alquran baat bi nga xam ne noonu la ñëwee nga gis ne booba sax sida waxaguñ ko baat bi waaye gis nga ba mu ñëwee timi rek dañoo mujj tolloo wasdan kon na ku bàyyi bii rek mucc ca bële gis nga ko tamit benn jigéen mas nañu laaj ne waaw lan moo waral lislaam di may génn góor muy am ñaari soxna léeg-léeg muy am ñett léeg-léeg muy dem ba ayam ñeent te ñun jigéen ñi tamit ñun benn jëkkër rek la am ma laaj ko ne ko waaw dama lay laaj yow ñaata nga ci sa jëkkër mu ne man de yàlla dogal na ñeenteel laa ma ne ko yow war ngaa gërëm lislaam yow bu lislaam yoona lu toon ñeenti soxna yow li ko doon doo xam jëkkër mukk ndax ñi takk benn ñëpp takk nañ bàyyi la fi borom ñaareel yi ñëw ñaareel bàyyi la fi boroom ñetteel yi ñëw am ñetteeli soxna bàyyi la fi yow kon bu tu bu quatrième place amutoon yow doo am place kon nag gërëmal lislaam mi nga xam ne moo yoonal maanaam ñeenteeli soxna di ñeenteeli place kon nag loolu kon li mu soxna yi dana nekk njariñ boo xam ne dana dellu dana dellu ci soxna yi waaye am na ci njariñ yoo xam ne tamit day dellu maanaam ci jëkkër yi kon gis nga ko loolu njariñ la buy dellu ci soxna yi ndax kat réew moo dem ak bi maanaa société boo dem ak kër goo dem ak xeet woo dem rek jigéen ña ñoo ëpp góor ña su fekkoon ne nag lislaam day wax ne góor gu ne benn jabar ngay am li ko doon dana bëri jigéen ñoo xamee na nii tey duñu am ku leen denc ndax tey jigéen ñi daanaka foo dem rek ëpp nañu góor ñi lu mat ñeenti yoon kon nag bu lislaam ñëwee ba ne góor gu ne bu sa loxo jotee sa gannaaw nga nekk ku baax ku maandu fexeel nga góor góorlu ba un ñeent su boobaa loolu dimbale jigéen ñi la yërmande la ci jigéen ñi waaye tey gis nga bañ ko fi bàyyee kenn ku ci nekk bëgg a yem ci si seen si njabar tabaarakallaahu bëgg roy tubaab yi tax na tey jigéen ñu bëri amuñ ko leen denc yàlla dogal amuñu ci bëri amuñu diine ju leen mën a contrôler ba ba moy mooy ñenn ñi amuñu dignité ba ba mënul leen a contrôler ba nga xam ne tamit dañuy dañuy rusa mooy ngir seen askan wala ñi ragal a mooy ngir seen borom ñoo ñooñu nag tey buñ jëloon lislaam di ko dund ku ku la sa loxo jot sa gannaaw nga yërëm jigéen ñi denc ñett ba ñeent su boobaa tamit loolu dana wàññi maanaam li mu jigéen ñi ba nga xam ne mooy googu tamit dana nekk loo xam ne lu lu jeex lay doon gannaaw bi nga xamee ne ñëpp gis na ci seen bët. ñaareel bi tamit ci xikkamatu bi mooy ku bëgg njaboot gu bëri macha allah dangay fexe nga wut soxna yu limu ndax boo amee benn soxna rek sa njaboot day am fu muy yem benn nga am ñetti doom wala ñeent wala juróom yem ca. waaye nag bu yàlla dogalee nga am ay soxna yu limu kii nga am ak moom ñetti doom kee nga am moom ñeenti doom léeg-léeg nga dem maanaam ba ëpp loola su boobaa rek bi maanaa da ngay mujj nekk koo xam ne ku njaboot nga te nan njaboot te leen a teg ci siraatal mustaqima taxawu seen yar taxawu seen jàng dimbali leen la ca war kooku njariñ la rëy rëy rëy la moo taxoon gis nga yonentu bi maamam Abdul Muttalib keroog ba mu jugee ngir bëgg a gas sam-sam yi jug ne ko doo fi gasee mu gestu gannaawam amul doom si la jug rek mer ne su may bëgg gas teenu samsam bii muy teen boo xamee ne nii teraangala ak xéewal ñeel mbindéef fi yàlla yépp du ma wax rek jullit ñi ngeen bëgg ma koo xeeñ li ma amul njaboot moo tax waaye léegi jaayante naa ak yàlla su ma yàlla mayee fukki doom yu góor yoo xam ne su ma meree ñi mer taxaw sama gannaaw danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla te yaakaar naa reyal nañ xar yàlla jaamoo ko ko reyal nañ ko nag jaamoo ko ko rayal nañ ko neneen jaamoo ko ko waaye kenn musut koo jéem a rayal nit di ko ko jaamoo kon nag su boobaa man danaa ko rayal nit jaamoo ko ko comme ni ko sama maam yonentu yàlla Ibrahima bëggoon a defee ca doom ja Ismaila yàlla dogal mu ne nag ku bëgg doom yu bëri da ngay fexe ba ut soxna yu bëri ci la mujj ut maanaam ay soxna yu limu ñenn ngeen nañ amoon na juróomi soxna gis nga ko ci la mujj am li mu am ci ay doom ci diggante góor ak jigéen boo leen calculer tuuti moo ko manqué bi ma naa ñaar fukki doom waaye gis nga ko lam bëggoon mujj na am euh, gis nga ko moo tax yonent bi daan toba si yàgg rek mu ne anab nu zabihayni man maay doomi ñaar ñiñ rendi ña maay maay doomi ñaar ñañ bëggoon a rendi ndax sama sama sama maam ibrahima bëggoon naa rendi doomam ismaila yàlla jotee ko am kuy man mi timit sama maam Abdul Muttalib bëggoon naa rendi sama baay Abdallahi yàlla mujj njotee ko ko ci lu mat téeméeri gi de ndax dafa mujj dem ca buxaaba ya ne leen waaw man de bëggoon naa rendi sama doom ji Abdallahi gannaaw bi nga ko téye yóbbu bëgg koo yóbbu ca diggante Isaaf ak Naayila waaye keroog Màkka li ñuy bon bon ña fa dëkkoon keroog wax nañ dëgg waaye waxuñ ko nag dëgg ngir bëgg lu baax wala ngir bëgg dëgg waaye dañ ko def ngir sooy seen bopp ne ko Abdul Muttalib duñu la bàyyi mbukk ngay rey sa doom ji di Abdallah su ëllëgee mu nekk fi aada ku amati fukki doom yu góor rey ca kenn léegi nu ñuy def mu ne ko léegi xam nga ne jamono ji yonentu amut waaye bu xaaba yàlla may na leen xam-xam am na benn bu xaaba bu mag bu ñu tuddee sa jaaxu nañ fa dem lu mu àtte rek maanaam nga nga nga jël ko ci lañu mujj rek dem yaman mu ne leen waaw yéen arab yi ñaata mooy seen diye ci ku rey nit ñu ne ko fukki gëléem fukki gëléem ku rey nit ba lislaam ñëwagutoon mooy sa diye ñu ne ko nag kon jël leen xalel bi jël fukki jëlem teg ko teg xalel bi su ngeen wantalee bant ya dal maanaam xale bi yokku leen yeneen fukki gëléem su fekkee nag dal na gëléem ya d'accord leen ne yàlla gërëm na ko ngeen rey gëléem ya ñu teg filie xale bi di abdallahi jël fukki gëléem ya wantale bant ba dal abdallahi ñu yokkaat yeneen fukk muy ñaar fukk wantalewaat bant ba dal abdallahi ci lañ mujj di ko def di ko def ba mat téeméeri gëléem ci la bant ba door a toxaloo ci abdallahi door a dal ca gëléem ya mu ne ah ba ma koy def bu njëkk ba defoon naa ko ñetti yoon sànniwaat bant ba dalaat ci gëléem ya mu sànniwaat bant ba dalaat ci gëléem ya mu door a xam ne yàlla gërëm na ko door a dag nag maanaam doona door a dem nag bi maanaam ray gëléem ya moom la maam xalifa nges di wax ci téeréem bi nga tuddee mir aatu safa ne xarabuha ashran min a nuuqi ashran wa mi sahmi naxwaha imaa mu ne kon nag jaamoon nañ ko fukki giléem ba muy fukk xam nga fukk ba muy fukk nag moom téeméeri giléem rek la njëkk loola nag saa yu ñu sànni rek giléem ga bant ya dal ca maanaam xalel ba waaye ba mu matee téeméeri giléem ci la door a toxalu dem dal ca maanaam giléem ya ñu door koo rendi sori abdallahi mi nga xam ne moo ñu andil sayidul anbiyaa wal mursalin di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu daan toog ne ana bnu ni maay doomi ñaar ñu bëgg a rendi ña kenn ka di ismaila keneen ka di abdallahi ni nga xam ne mooy baay waaye li ma ci amal solo rek gis nga ko mooy maamam abdul muttalib ba mu bëggee njaboot dafay yëg ne njaboot dëgg ku ko bëgg benn soxna mënut koo maye ni may def nag mooy damay dem rek uti maanaam soxna yu bëri ndax ma mën a am njaboot gu bari ci la dem tey ut soxna yu limu yàlla may ko xaaris moo doon ab taawam ca góor ña la gis nga ko moo jur abu lahab gis nga ko ca góor ña la moo jur abdu abu taalib gis nga ko moo jur xaydaaq moo jur maanaam xijlu kon doom ya nekk nañ yoo xam ne ni yu limu la moo jur maanaam xamsatu moo jur maanaam abbas kon gis nga ko doom yu limoo limu la ko yàlla may ah gis nga yu jigéen ya safiyatu arwa ñoo ñëpp ca doom yàlla ak bayda may maymunatu ñoo ñëpp ca doom yàlla ba boo leen limee ñoom ñëpp daal danañ la jox presque lu jege ñaar fukki doom ci diggante góor ak i jigéen loolu lu ko ko may soxna yu limu ca la dem ba yàlla wër sa wërsëgal ko nag ah abdallahi mi nga xam ne moo ko andil moo ñu andil sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag maanaam bëgg am njaboot dana tax bi maanaam nga ut soxna yu bëri te yonentu bi daana wax ne innamal izzatu lil kaafiri képp ko bëgg am pouvoir bëgg a am bi maanaa tedd nga bëgg a am daraja ak ubbeeku fexeel ba yàlla may la njaboot ndax boo xasee am njaboot place bu ne sa nit nekk fa su boobaa yaakaar naa kenn du la mën a xasati kenn du la mën a jëwati ku ñuy koo gis ñuy jëw rekk dafa néewi mbokk waaye ku bëri mbokk rek place bu ñuy bëgg a jëwee rek ay mbokk ma nga fa gis nga ko timit euh, loolu timit kon dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo tax gis nga africain yi dëgg la ñoo gën a néew ñoo gën a ñéew tey ñàkk ci àdduna bi waaye soo amee xel mën a analyser da nga yëg ne àdduna bi yëpp yëpp fii lay mujj ndax li ko def ñoo ëpp njaboot ñoo gën a ñoo gën a limu ci ay nit ci yeneen continent yi te nag xam nga ne xéewal yi li muy bëri bari bëri nit ñi ñoo mën a moom xéewal yi waaye nag xéewal yi mënta moom nit ñi su ko defee nag kon moo waral yeneen réew yi tey boo ca demee ay màgget rek nga fay fekk ku am juróom-ñett fukki at juróom-ñaar fukki at waaye tey réew moo dem tey ci àdduna bi fu dul Afrique seeni màgget ya ñoo ëpp seeni ndaw ya waaye Afrique rek ngay ñëw fekk ndaw yi ëpp maanaam seeni mag ñi su boobaa nag loolu li leen ko may mooy ñii takk na ñaari soxna ñii ñett ñii am ñeent su ko defee kon yàgg-yàgg buñ demee ba nga xamee ne nii a àdduna danañ ci yegg su boobaa tamit li fi mujj lépp africain ñoo koy mujj yore ndax kat ñeneen ñi xéewal ga ma nga fa teraanga ya ña nga fa am am ba ma nga fa mais nit ña ñoo fa newut te nag gis nga ko teraanga yeeg xéewal yeeg naataange yi nit ñee ko mën a moom waaye ñoom mënuñoo moom nit kon nag gis nga àdduna day doxe gannaaw te gis nga buñ doon dox ñun ñëpp continuer dox ba ci kanam yàlla dogal ñu ne eh yéen ñi doon dox dëppaat leen su boobaa ña féetee woon gannaaw ñooy mujj rek féetee kanam ña féetee woon kanam ñooy mujj féetee gannaaw foofu lañ toll tey ci àdduna buñ demee nag ba ñu war a dëppaat rek su boobaa nag africain yi nga xam ne ñoo gën a tey nekk ca gannaaw ci wàllu am-am ak ya ca aju su boobaa bu buñ dëppaati rek ñoom ñooy nekk ca kanam yal na yàlla yóbbu ñu ca loola. su ko defee kon nag loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baaxa baax ñaareel bi tamit am soxna yu limu dana waral say doom am jom waaye boo nekkee góor ak si soxna. góor seen fenn si njabar su boobaa boo amul sens sa taaw ba ni mu mel ñi lay doom yëpp yu mel rek waaye nag bu fekkee dañoo limu kenn ku nekk day ñëw ne sama doomi bàyyi bëgguma mu gën ma sama doomu bàyyi bëgguma mu raw ma sama doomu bàyyi bëgguma mu ëppale ma nangam concurrence googu ñuy def ci dañ demee ba kenn du gën kenn ku ci nekk nga mujj am doom yu baax yu bëree bëree bëri kon nag gis nga taaddudu zawjaat l'islam indi na ko mu nekk loo xam ne xam naa point bu yaatu la